contribution par rapport ak li nga xam ni tey jii moo xew euh, damay jaale papis bu gelongal waa Sénégal yëpp di ko jaale képp koo xam ni yaa ngi doon bëggee le groupe gelongal mais encore une fois il faut ñu am loo xam ni il faut ñu def ci euh, leeral mooy tey jii mënuñu jël benn autoroute à teg ko fii Eiffage di ko ko pour 30 ans Sénégalais bu nekk di fay 3800 francs pour dem aéroport Diass tey ci xoolee diggante bi amul benn lumière sénégalais yi di ci dee comme ay wañ donc tey jii ñi dee ci diggante bi mun nañu wax ni bari nañ mais ñi ci dee mën nañu wax ni kenn xamu leen parce que c'est pas des artistes wala nekk ñu ay nit yu nit yi xam tey jii Papis dañ ko xam moo tax dee bi am donc nag ñu ngi interpeller état Sénégal ñu jàppale ñu ci def autoroute à péage bi lumière. parce que sénégalais dañ koy fay may ñu ñu ko dañu koy jaay donc nag Eiffage li ñuy def nii c'est de l'escroquerie mënuñu jël sénégalais yi di leen laaj xaalis bu dul jeex ba pare di leen rey ci mbedd mi comme ay wañ nañu def lumière ci autoroute à bi c'est ça qui est normal donc nag loolu moo nekkoon sama contribution par rapport ak li nga xam ni moo xew may jaale papis waa Sénégal yëpp merci beaucoup